ku ko xam len rek nga ko xamé moy jaamu yàlla ak jariñ jaamu yàlla yi. man de dama dan faral di wax ne ku bëgg gis nitu aljana buy dox ci suuf xolal Cheikh abdul Qadir Mbacké radiyallahu anhu innamal mu'minuuna allaziina izaa zukkira wajilat quluubuhum ba aaya ji jeex damay gëm ne bu doon am mbubb dañ ko sañ a bu xaadir sëñ Abdou Khadir moom mooy sunna rek la yónnent bi def ci adduna mu fi te sëñ Abdou Khadir mosu def te waajaloon na wax ko man ki nga lañ yebal rek mu di tuddi ñu wax ne ku gis sëñ Touba wax ne ku gis tool ak askan ak nit <laughs> kon koy tudd am na ju tax mu dafa bi ko fal xayral imaam danaa la wax nag kañ la bis bam ganee adduna moom fa ñu na darul halim mom la walaf yi waaye nda am seex abdurahmaan fa won muy ñatti fan ci utam xarit serigne bu mag bii ni bërit ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy man nañu ma wol ceerno mu ñew ma wax ko lol masul la xew barab bi di alim al xabir ñu gën ko xam ci ndam mooy fi nga xamne li ëpp ci njabotuk serigne bi ak waa këram ñépp ci loxoom lañ jaar muy sëriñ Daam Abdourahmane Lo mu jàngal leen alxuraan ba ñu mokkal ko mokkal gu wér bind ko it mbind mu rafet fii ci ndaam bokk ci barab yi nga xam ne lu bari ci njabootu sëriñ bu mag bi fii lañu gane àdduna kon muy barab boo xam ne barab bu am jeexit la ci yoonu murit barab bu ami jeexit la it ci Cheikhul Khadim teelu fan ci muharram di bi nga xam ne ci lañu yàlla baax jëmm ji tedd joojee di Cheikh Abdoul Qadir ibnu Cheikh al Xadim Sëñ Abdoul Qadir nag moom mi ngi gane àdduna ci daarul alimil xabir ci ñetti fan ci muharram 1333 hijriya loolu mi ngi dëppoo ak ñaar fukki fan ci novembre 1914 xam nañ ne bi sëriñ bu mag bi jógee ci yéen jëm njaareem jaaroon na Daarul Ilmul Xabiir am na it lenn ci njabootam ñoo xam ne fi la leen daaloon am na diggante boo xam ne nag soxna Aminatu Buso mi way juróom fi la nekkoon ba fi la sëriñ Abdou Khadir Mbacke ganee àdduna bi nga xamee bii nekk nañ njaarim ba ba sëriñ Abdou Khadir gane ji ba sëriñ Abdou la woo maam Thierno top Gadamdam, Badame, Duduk, duduk, to do Wakanam Kui to dig up, Bom Kokohe, Tanikona Gangogekat, Mufokula. Eh, fii fii nga jóge tey di ko tuddi ba ba ngay yegg képp ku la fi gis rek yaramu alam sawar noonu la ko waxe dégg nañ xabaat boobu mu waxoon ne ko euh, fi ba ngay dem ba ba ngay dellusi si koo fi dajeel ñu jégal ko am na ñu wax ne booba ma nga jaareem waaye am na ñu wax ne it booba mi ngi tuubaa di sancaat kër Touba gi nga xam day mel ne kon sëñ bi ne ci moom nekkoon ko na dem joxe ko mu mel ne wax nañ ne maam Thierno ndax yërmaane jaag yéwén ga tax naa ba muy dox fu mu romb dañuy woo nit ñi ñu génn gis ko mu door a jàll. maam Thierno mi ngi ànd ak juróom-ñaari nit. nga xam ni ay gawar la ñuy wari fas ndax boobu oto amul dañuy wari fas rek ñëw bi maam Thierno jógee ba nga xam ne mi ngi ñëw jëm si ndaam di ko tudd si buñ rombee ay néeg rek buñ seeni ay néeg rek sëñ bi day daal di wëlbati fas yu jëm jëm néeg bi bu demee comme ñu man di doon mu ne leen na ngeen wax ne ñu génn ñu nuyu ma ndax dama leen di dama leen di siyaare dama fee jaaroon rek doon leen nuyu di leen siyaare ngir bëgg jaxe googu ñooñu am ci noonu la def jóge njaareem ba yegg si ndam tudd ko ci ndigalul sëriñ bu mag bi tudde ko Abdul Xaadir ci noonu ma ko waxee tur wi ay wax am na ci sëriñ bu Xaadir Mbàkke kuñ ko tudde ñetti wax danañ ko ci wax benn bi mooy maam Abdul Xaadir bi mu tudd sànq nga xam ne maamama ndax moo ko Aysa Balla mi jur soxna Kanni mu jur soxna Aminta bu suñu bokk ndey ak baay di taaw maam Maharam doonoon borom xam-xam bu ràññiku am na ñu jàpp ne moom lañ ko tuddee. am nañu jàpp ne Cheikh Abdul Xaadir Jilaan lañ ko tuddee ndax ci wàllu ruux seqoon nag Serigne Touba wax nañ ne sax daan na feeñu Serigne bi di sàkku ci moom ñu jàpp yonent ali sallallahu alaihi wasallam lañ ko tudd ndax sëriñ bu mag bi bari na ci ay turam ño xamne abdou nangam la wax waye yonent ali sallallahu alaihi wasallam ci jublu ndax yonent moy abdullah moy abdul ahad moy abdul rahman moy yëpp abdul khadir kon ci turu yonent sallallahu salaam bokk yooyu yëpp yu ñuy wax la yo xamne ne bu ci nek ñi koy wax amna luñ mëna a waye dal japp na ne bu bu mujj wax moy japp na ci turu yonent bi alayhi salaam la moom lay gëna leungal ndax ñi masel ñoo ñep yonent ali sallallahu salaam la leen tuddee ñu jitu tuti ak ñi ko jiitu tuuti kon loolu mooy Abdul Qadir gi. martaba boobu koo xam ne bi ngay ñëw ci jamono moom nga ñëwaale nga xam ne danga ne cëpp rek sa daraja àgg ci ka yi joxi tur kum taseet ñu jéggal ko ba kër muy delsi kooka bu fi nekkee te yaa fa sut farlu di liggéey guddi di liggéey bëccëg ba am juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn li mu ba abdu la dund kon jàpp naa ne ba muy dem la mu yóbbaale xel du ko mën a xalaat. ci sëñ wax ci sëñ Abdou Khadir te ci mujj ñi la. wax ko ci ñu njëkk ñi xamuñu nag ci sëñ Abdou Khadir la xamuñu ci la waaye mi ngi ci seen diggante rek waaye sëñ wax na ko moom waaw <laughs> te wax ko ci wax ko ci ñi des ñëpp. soxna Aminatu Boussa di way juróom bu jigéen muy koo xam ne it lu baree bari la bokk ak sëriñ bi sëriñ Tuubaa muy way juróom waaye nijaayama di maamam mu bari lool lu mu askanoo ci askanu maam Maharam ndax maam Balla Aysa maam Ahmadou Soxna Bousso maam Ibrahima Awa Niang ñoo ñoo ko seq ci maanaam. te anam yooyu am na ko ci Mbàkke waaye bu fekkee nag amaan ak yenn anam ci Ahmadou Farimata ma nga xam ne nii mooy taawu maaram nag foofa foofa ndax su Mbàkke ma nga xam ne moo moo demoon ba yenn am kan ni Aysa ak Soxna Aysa ñoom ñooñee ñett ñooñee ñoo bokk ndey ak bàyyi boo nga xam ne am na fa yenti anam yoo xam ne Sëriñ Abdou Khadre am na ko ci biir Mbàkke euh, yetti yenti anam yu wér ak anam gi mu am ci kër euh, Mamour Anta Sali muy Xaadimu Rasuul noonu mooy wàllu euh, soxna bu Bousso moomu xam nañ Sëriñ bu bi mooy waajuram xam nañ Sëriñ Bousso bi ak soxna Jaaratullah ñoo bokk waajur góor awu jigéen kon foofu mbokkum sëriñ bi la mu ko jege waaye soxna bu Bousso moomu so aminte kanni lañ ko wax soxna kanni mi ko jur doomi serigne mor la serigne mor jee mam ibrahima awa ñang mam maharam waye soxna kanni mu yit euh aïssa balla ko jur aïssa balla ak fati balla ak abdul qadir ño bokk nday ak bay mam balla aïssa moy seen way jur waaye fekkaan amana amaan anam ci ahmadou fari ma nga xam ni moy taw maram nak foofa foofa ndax Astu Mbàkke ma nga xam ne moo moo demoon Mbayeen am kan ni Aysa ak soxna Aysa ñoom ñooñee ñett ñoo bokk ndey ak bàyyi foofu nga xam ne am na fa yenti anam yoo xam ne suñu boxaat am na ko ci biir Mbàkke eh, yetti yenti yetti anam yu wér ak anam gi am ci kër eh, Mamour Anta Sali muy Xaadim Musaa wax nañ ni Maam Abdou Xaadir moom moo doon taawub Maam Balla Aysa biñ ko faatee fii ci bawol la fi maam Balla doon dem Saalum looloo tax mu des ci euh, kon soxna Faati Balla mi nga xam ne mook Aysa Balla ñoo bokk ndey ak baay Faati Balla moom mooy way juru sëriñ Mbàkke bi mu nekkee sëriñ bu bi ba sunu borom dogal la mu dogal ci lañ fa indi soxna Kànni mi nga xam ne doomi Aysa mi mbokkal ndey ak baay loolu waral sëriñ bakki Bousso ak soxna Aminta Bousso ñoo bokk benn waajur waaye sëriñ Mbacke Bousso nijaayam ndax moo yaayam seen ñaari ndey bokk ndey baay. bokk mi woon daal waaw xam ne nii eh, ndax fi ne bu ñu ne lu mbokk sëñ gaawaan nga daal di wax ne ah sëñ gaawaan ne moom ba nga xamee ne bokkagut sëñ bi dara. mooy nijaay soxna Aminata Bousso ndax soxna Kani moom moo de mooy soxna Kani mu nga xam ne moo jur euh, euh, soxna Aminata Bousso de moo doon doomi nijaayam kooku kon nag euh, loolu la doon ci moom ci kooku anam bu ñu nee lu lu mu doon ci ci ci sëñ Gaawaan loolu ngay daal di njëkk a wax bu ñu nee sëñ Moudou Maam itam nga daa Ibrahima Kani moom ak ak Mor Jaay ñoo bokk benn baay te kii jur kii kii kii kii ñoom sax ay doomi la demee ci Mbàkke ku fi mbokk rek mbokk ma yi la demee ci ci ci askanu Mbàkke ak Bousso bi daanan ko xëy ak suba teel di ko joxañ sunuy biteel mu di nu muuñ ngiruk cofeel kuy dàq njàqare la woon sëriñ abdul xaadir askanoo ci mbàkke ak ci bi di mbokkum ñu baax ñépp ganee àdduna ci réew mi jàngee fi ci lenn ci mag ñi toppoon sëriñ Touba ku mel ne sëriñ Daam Abdourahman ak sëriñ Mbàkke Buso ba géeju ci fànni xam-xam yu bari te wuute doxee nag bi mu demee ba am juróom-ñaari at ci weeru gàmmu 1340 dëppoo novembre 1921 ci lañ ko indi dalal ko sëriñ bindal ko ci àlluwam ñaanal ko boole ko maam aw bu mu dellu si ko ndam mu ngi ci sëriñ ndam di jàng di jàng ba xëy na mën nañoo jàpp ne am njàngum alxuraan xam naa yeex ndax kon mënoon naa àggal ci kanam sëriñ bi xam na juróom-ñaari at ndax 21 ba 27 ginnaaw bi sëriñ bi ñëw ñibbisee Touba nag ci lay ko jël si sëriñ Mbàkke bu sa jël si ko yóbbu ko Guédé boole koog nijaayam ñuy wax sëriñ Ibrahima Ndiaye ndax sëriñ Ibrahima Ndiaye moom itam soxna Asta Aysa mooy koy juróom Asta Aysa ak Kanni Aysa ñoo bokk ndey ak baay te Kanni moo jur soxna Aminta Bousso kon mën naa wax ne sëñ Ibrahima Ndiaye doomi ndey soxna Aminta la kon nijaay sëñ Mbàkke nijaay sëriñ la moom la ko sëriñ Mbàkke booleel ci ronam la àggalee alxuraan ba bind kaamil ginnaaw alxuraan ju rafet alxuraan ju rafet euh, bi mu bindee kaamil ba noppi nag ci la dellu ci sëriñ Mbàkke sëriñ Mbàkke tàmbali di ko jàngal xam-xam am diir ginnaaw bi ne la ko booleeg doomam sëriñ Xasan Buso nga xam ne mën nañu wax li ëpp ci am jàngam sëriñ Xasan nag ko jàngal muy tàmbalee ci téere yi ne ba ci mutawalaat yu mag yi foofee la jàngi téere yëpp yi nga xam ne baaxoo nañ ko jàng ci wàllu xam mu ñoroon ko loolu am na ab diirit boo xam ne jógee na fi dem njaareem ci sëriñ Mouhamad dem waaye yàggu fa mu del siwaat gede foofee daal àggale ba doon foore ju ñu xam ci xam-xami sharia yi ñu daana faral di bind bind ay téere sax am na xerzul muslimin boo xam ne mas nañ ko fay mool sëriñ Abdou Khadim Mbacké ko bind def ci ay ñaan ak liimaay yoo xam ne am solo ci jullit la teewul suñu xaadir li nga xam ne noonu la sëriñ Touba yare woon ñi mu àndaloon mooy defar leen ñuy defarewaat sëñ bu bu dee wàllu xam xam am xam-xam di ko xamle loolu amoon na ci liggéey na ci liggéey bu rëy gis nañ ay mbindam gis nañ am njàngaleem ku ne xam ne na jotaayub sëñ bu am njàngale la woon maanaam fu mu toog ñi bari na ñoo xam ne ci moom lañ xamee siiratu Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ci siiratu saxaaba loolu moom siiw na ci jotaayu sunu xaadir xam-xam la doon dundal. bari na lool ay lettres yoo xam ne ko bind ci arab luxa luxa luxa arabiya luxa bu kawe bu jéggi dayoo boo xam ne. man mii di wax ak yéen am naa ci benn lettre boo xam ne moo ko bind sama maam la ko bindoon doon ko jaale soxnaam su génnoon adduna euh, ak yu bari yoo xam ne yeneen yoo xam ne ci jëflante diggante mbokk yi yoo xam ne boo ko yëree da nga cee mën a xamee euh, ci mustawa bi nga xam ne amoon na ko ci wàllu xam-xam boobu kooku mooy sëriñ Abdou Khadre ci wàllu fi mu jaar ci jàng ci moom gisee su ko faneen ma waxal tuut ci maandu gi Baxdaat ma son na faa jóge wàcc di jënd lum bëggoon borom bitig ba nuyu ko daldi ni addiyaal na ko mu ni ko njëg gi ko kersaala jàppatu du leneen addiya ba lépp daan def daan ci bàyyi xel sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa mu doonoon kuy jëmmal lii di al bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa lool ba nuru woon ko sax ci jikko woo woon alxuraan jikkoom yooyu tax na ba jullit ñépp ko nanguloon moom Cheikh Abdul Xaadir ak tarixa yépp taxawaayam ci yoonu murid di taxawaayu ab defarkat di dimbale jaam ñi ba képp ku massa a jëflanteel moom Cheikh Abdul Xaadir gërëm nga ko ngërëm loo xam ne ngërëm lu kawe la di tukki jëm Dakar fekk mu nekk ci saxaar ñooy daw daa dénk démb ak barki démb moom la leen di denk ba tey moo di ñu sax ci jaamu yàlla moo di ñu sax ci jaamu yàlla ci sunna ci sunna sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wattandiku ak tooñ. day wattandiku ak tooñ. dugub sëñ Abdou Khadre moom loolu jënd ci ko rek la mooy nitu yàlla la rek lépp lépp biir biti dama daa wax daanaa wax ci sama xalaati bopp yi ni Cheikh Abdou Khadre xaali sëriñ bi ñu soppiku jëmm la. ومم ديكو ديكو اكس أنا أقول لك ني مال مال ديكو مان دي داما دان فارال أنا أقول لك بوغا غيس نيتو الجنه بوي دوخ سي سوف خولال أنا أقول لك مكي رضي الله عنه مريد صالح لا مريد ديكو سيغ توبا تنكي رك ديب سولو موي بوغ اك كم ليغي جخي تويتال جخال ليبم ku bëgg sëñ la bëgg gépp nag dana liggéey sëñ ci bëgg sëñ bëgg bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa dafa mel ne da ko ca mottaleel ay yam doon dox ku ne xam ne ne dundam gépp gépp moom ci sunna rek la ko jeexal man doo baat yëpp yëpp da ko màng waxumala ak leneen waxumala ak nag ay sunna fat man doo baat yëpp ci tooginam ci buy dox ci buy wax ci buy dugg ci oto bi lépp rek la ci charia la ci sunna santaane loolu lay sàmmanteel ak lu mu sew sew du ko bàyyi. ne moom dafa jëmmaloon lii di al istiqaamatu ci ñépp xamoon ko ci doxinam ak waxinam. nee na mi ngi nuyu digal na sax ci jaamu yàlla. bu ñu nee nag day melokaan woo xam ne dafa ëmb melokaan yu baax yépp ci diine ndax mooy. li diine bëgg ci doomu aadama bi mu mel noonu ci wax ak ci jëf bañ a ëpp bañ a yées euh, ni ko nit ñépp di waxee rek boo bëggee gis sëñ Abdul Xaadir te bëgg koo xam rek nel alquran juy dox la boo bëggee xam sëñ Abdul Xaadir te bëgg koo nitaal rek nel sunna suy dox la. waaw sëñ Abdul Xaadir moom mooy sunna. keroo dama am sama benn mbokk keroo bis bi nga xamee noppi nañ ci sëñ Abdou Khadre bi def si laa dikk ne ko sëriñ mu ne ma ne ko sunna faatu na tey mm-hmm. sunna faatu na bu doon jëmu ne faatu na mm-hmm. ndax ni ma la ko mën a tënkal daal ci gàttal loo masa a dégg ñu sëñ yónent bi def na ko rek sëñ Abdou Khadre def na mm-hmm. lenn rek la yónent bi def ci adduna bàyyi ko fi te sëñ Abdou Khadre mosu koo def te waajaloon na ma wax na ko man ma dégg muy lixiti gaaw boo xoolee fi mu jaar daaru alimul xabiir daara Serigne Touba ju mag ji fa la gane àdduna ñi ko séq ñëpp nit yi diine lañ nit yi xam-xam nit yi njub Serigne Dame mi mu njëkk a ci loxoom di jàng koo xam wax nañu ne niñ ko xamee ñëpp daan na naafila karim ci ñaar rakka. jikko si yëpp dafa dëgg dëgg dëgg nag mooy jikko si yëpp dafa daal mooy alxuraan seen lu baax lu nekk ma nga sa lu lu lu amuñ amuñ amuñ si defar amuñ si yàq waaye bëgg lu baax lool te bañ ko booleeg dara bëgg ñu baax lool te attan si lu nekk lu baax jaral ko lu nekk. mooy nit ku dëggu la nit ku am diine la nit ku fonk charia la murit saadix la ku bëgg sëñ Tuuba la. ku ko gëm la ku yërëm bindee fii la li ci gën a doy waar nag sëñ Abdou Khadir gisul lu kenn am waaw mboolem amaam yi àdduna yi lu nit bari la bari la gisu ko waaye gis naa ci moom jikko yoo xam ne la ma képp koo xam ne jaxasoo nga ak moom te dégg yonent bi day ko yar loolu muy dëgg ci moom mooy jikkoom ñu bindee di gën farata ci jikkoom mooy du soppiku mukk guddi ak bëccëg wenn mel rek la yor. Cheikh bu ñu wax gëm yàlla da ko jëmmaloon ci lépp mooy wéetal suñu boroom nga xam ne wéetal suñu boroom wax ko moo gën a yomb waaye moom daf ko doon dund ci léppam ci tasarufaatam yépp bàyyee woon boppam yàlla wakiirlu ci moom waaye li li gën a kawe ci gëm yàlla mooy gëm gërëm dogalub suñu borom maanaam lu suñu borom def mu neex la loolu sëñ bu ku ci fesoon la kenn musta xam aw naqaram ci lu dul fu ñu xottee war may diine cër yi am ci diine ku xam danga xam ne du lu jaaxle waaye taay wi ko yàlla waajal ak jagle gi mu ko jagleel moo ko may cër yooyu muy koo xam ne nag diine rek lanu dund jaamu yàllaam nag moom foo ko gis da ca waay waay goo xam ne kenn mm, daanaka néewuma waaye leen lu mel noonu ndax waxtu woo muy war a jàng alxuraan eh, da koy jàng waxtu woo muy war julli eh, dara mënu ko julli waxtu woo muy war a beru di def ay wirdam bu yegsee rek lool la dana ko def diiru ak dundam te loolu yombut ndax matale ko jafe na lool bëgg yonent bëgg goo xam ne nii sallallahu alayhi wa sallam rek lay wax du jaar daa rek du jaar ci tudd euh, jëmmi tur wi ndax bëgg mu ko bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa it nag ci sariya lislaam ba ñëpp xam ne liggéey na ko ci liggéey bu ñëpp teg bët waxuma de murid yi waaye ñi dul ñi dul murid sax te ay jullit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 ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jëlee daf ko mu nekk imaam jumaa yi Tuubaa bu Alhaji Modou Fadal wàcce bi liggéey loo xam ne mën ngaa jàpp ne 1968 euh, bi Alhaji Fallu wàcce bi liggéey ba 1990 Sëriñ Abdou Khadir ilimaani jumaa yi lépp lu suñ borom mosa dagal dogal rek da cay sant suñ borom subhanahu wa taala lépp lu doomu aadamay naqarloo ca mu jóge suñ borom Cheikh Abdoul Qadir moom da ca daan gis dogalub suñu borom daan daan ko ci gërëm loola kon ci gëm yàllaam loolu ak wakiilu ci suñu boroom loolu suñu suñu du Xaadir ñëpp xamoon nañ ko ci moom ak wakiilum àggoon na ci bàyyee boppam yàlla ba lii nga xam ne aadala mu dagan sax yenn yi muy lu mel ne lépp Cheikh Abdoul Qadir daawu ko def lii ñu def wut ay sukkandikukaay di ay di yenn fàggandiku yi sax Sëñ Abdou am na ci yoo xam ne daawu ko def ngir bàyyee boppam suñu borom subhanahu wa taala litikaaf rek la defutoon ci lu yónni ci mos a def te teewu ko waajaloon na ko nag dafa waxoon ne nag di litikaaf ci jàkka jàkkay kër gi wala foo xam ne ajuma fekk ko fa te mënta julli ji ajuma moo taxoon mënu ko mënu ko woon bi mu doonee xalifa nag mu daal di obligé nag ne nañ daal di gaaw defar ci biir jumaa ji ay ay ay néeg yoo xam ne may sax bi daal li may wax ne ma dama bëgg bu ko fi war a wan ñeent ak juróom bu bu ñu ci eggee dama ko bëgg a def bu ko defee yéen itam ku ko ci ku ko ci soxla mën ko faa def kon la daloon yonent bi dal la ko yonent bi eh, ci dafa waxoon ne am na eh, ci taasuwa wala asura dafa waxoon ne fekk bu bu so bu déy ne bu ko fekkee dana ko def mm-hmm. yàlla dool ba ji benn mu bàyyi ko fi bu kooku moom dal na waaye lépp loo xam ne nitu suna dana ko def lu na rek suñu avocat def na ko ba jeexal ko te na ko daan def na ko yónnee daan def rek ko defee mosu leen boo xam ne bokk na ci la gën a yéeme diggante boobu lim fi manqué ay ajjuma mënees na ko wàññi am na ci diggante boo xam ne mooy diggante bi mu demee Makka nga xam ne le 8 novembre 1976 ba le 14 décembre diggante boobu ajjuma yi fi nekk jiituwu ko ak ajjuma ji nga xam ne moo jiitu bi mu wàcc liggéey yu dul yooyu rek ci ñaar fukki at ak nangam yooyu sëriñ Abdou Khadr mësta wuuti ajjuma ci jumaay Tuubaa loolu nag jàpp naa ne du dëgg la ak dogoo nga ci pas-pasa nga ci waaye jagle ak suñu borom ak ki nag ndax wéra yaa ngi fi soxla yi adduna yaa ngi fi yëpp mësta gàllankoor seen Abdou Khadr man toog na ma ak moom ca koso mu ne ma lenn rekk laay ñëwee nit de nit ku ma gën a ragal yàlla wala nit ku ma gën a gën a gën a gën a mën a jaamu yàlla kooku rek laa ñee waaye ñëwuma keneen man ka ah, damaa defe ne yooyu yar de kenn ak siwu ci ci dee dee ci yow mu ne ma ah, loolu de laa bëgg moom laa ñaan sama borom it fu ma toll eh, dafa am jikko yoo xam ne nii mën naa ni ña ko ci fekk bay wut muy maandu doylu tabe goru ak dëggu ndax loola day jëkk ju solo foo gisee coow ci àdduna rek jikko yi dafaa dajagut li ma la ne ci njaal benn nga euh, dañoo soxla ko mel ne sa yëpp xaar ngir référence bu jëmm ñëpp tënku woon ci ni doon doxee doo dégg xuloo doo dégg xeex. Abdou Xaadir yàlla yëpp da koo tënkoon ci ni ko Yonent bi alayhi salaam daan daan daan defee xarfan bi xarfin euh, boo xoolee ci nim daan sàmmoo waxtu nim daan sàmmoo ay waxtoom ci jaamu yàlla nga xam ne du faat mukk mukk mukk waxtu ak len lu nekk waxtu wam ko daan def waxtu wam ko war def ci la koy def. ñi ko xamoon àggoon nañ ci nim tënkoo woon ba daanañ wax ne waxtu sàngam am na ñoo xam ne wan nañ laa wax boo demoon ci Sëñ Abdou Khadre tey la koy fekk mu nekk ci muy ku amoon farlu ci jaamu yàlla yi ci waxtu wañ koy def ak nañ koy defee. waaye boobu nga xam Sëñ Abdou Khadre dëgg dëgg dëgg neen murit saarix buy dox la it man mi nga xam ne toog naa ba tàyyi ak moom càmbar ko natt ko ci. pas-pasam ci sëriñ bi gisuma ko ko jot ci taalibe gisuma ko comme yomal ci taalibe gisuma ko. lu jamono xat-xat diir man li ma fekk lépp ajjuma ju ma saa jot dana jóg dem siyaare si barab sëriñ Tuubaa bi jox ko war ma ju mat sëkkit nag ndax mësta dugg mukk ci biir barab bi saa yu àggee ca pegg ba lay toog ñu daal ko fa si jaadaam mu siyaare ñaan ñaanal julli ñëpp dëppaat bu dee bisu màggal Tuubaa nga xam ne xat na sax. waxtu wu jotee ci biir néegam lay def siyaare bi day woote nañ leen def siyaare bi sëñ Tuubaa bi kon mosu koo jëndal benn jamono mooy ajjuma fu mën noonu nga xam ne sariya <coughs> la fab teg ci euh, fab tànkam teg ci sariya dara mënu koo tax a euh, jëm feneen adduna mënu ko euh, alal mënu ko dara mënu ko kenn mënu ko yóbbaale ci lenn lu àndut ak li nga xam ne moom la sama borom digle dara mënu ko yóbbaale ci dara li nga xam ne lii moom la sama borom tere waaw loolu dara jaralu ko ngor mit mu sam ko ndax borom daru mi dana waxna naa suñ ma dandalee ngor ak diine ngor lay jël ndax ku amul ngor do am diine mu sam nak ngoram ma taxawayam ci yoon nak taxawayu taxawaayu kan la won mom liñ gëna mëna jang ci mom moy da doon jëmmal ne li yalla bëgg nit mën na ne mel lol nak néew bu kawe la bare na ñu bari dañuy japp ne ndigal yalla dal mom da ngay góorgóorlu waye matal dal mënta nek nu daal góorgóorlu xëy na ba kii waaye sëñ bu xaar dañu wane ne li yàlla bëgg jàmm ne mel jëmmal na ko ci pas-pas ci jëflante ci jaamu diggam rafetal diggam bu borom ak digganteem ak jàmm ñi ku ma sa seq moom rek ba nga génnee gërëm ko ko koo xam ne ni fi nekk lépp li yàlla sant lépp njiitam ko waaye diggam ak njabootam diggam ak taalibe yi diggam ak mbokki jullit yi diggam ak jàmbur ñi amut kenn xarma yàlla. li ñuy wax ab jullit xaqan ku koy wut ba àgg si Abdou Khadre moom foofu nga mën a yem képp kuy dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gisook boo gis si Abdou Khadre ak taxamu gan astar rek ba xool ko ci yonent bi lu la ci moom rek boo xoolee gis ko ci moom loolu daan dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xamoo ko it boo xoolee sëñ bi da nga ko ci gis ci wax ak ci jëf gëm gëm bu gëman boromam ak doyloo gëm ko doyloo woon ak wakkiilu gi nga xam ne wakkiilu woon na ko ñoom ak bàyyee gi ko bàyyee woon ay mbiram ak wóolu gi ko wóolu woon neexu ci fekk istiqaama ci yooyu lay fee feeñe du rekk ay wax waaye day feeñ ci gëm yàlla nit ki di feeñ ci ak jaamum yàlla waaye di feeñ ci ni muy rafetalal ak jaamu yàlla mooy ni muy ni sellale la muy def ni muy dëggoo ca la muy def ci xolam nga xam ne la muy def suñu borom rek la ciy jublu ni ko yonte bi alayhi salaatu tënke woon ne an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak Cheikh Abdou Khadir ihsaan boobu da ci ku ci dë ku ci dëgëroon ab taxawaay la ci xaqiqatu mooy tasawuf turu si woowu nga xam ne alaaji Maodo Sylla rahimahullah moo ko tudde woon imaamul aimma wax ne la yàlla dogal moom ilimaan yi ne fii ci dëkk bi moo doon seen ji ndax mooy seen kilifa waaye ma ci yokk ne yàlla defal ko tawfiq nag mooy abul ayim njabootam gépp ay imam lañ nag lu am solo loo xam ne day wane dëggal jëfi suñu borom jëf du nangu ndax moom lu yoonam nekkut yoonam new ci du jëw du wax lu mu war a wax euh, doylu dafa am solo ci jullit bu jógee ba tey lu mas am doy na ko lu mas a am du ko wuti ndax koo xam ne mës ta leb te du leble boo kon xool ci jamono bariwut ndax nee na ñàkk mooy soxla dëgg la naam waaye leb damaa xam ne saa yoo lebee nit saa yoo ko séenee sa xel ca bor ba ci la njëkk dem boo taxaw ne julli sax boo ko séenee julli gi dootu am wax baax kon du leb nit lu mu am doy loo du lebal nit it ndax boo lebalee nit bu mënta fay si da nga ko ñàkk-ñàkk saaral kon du ko def koo xam ne ki dama leen daa wax daal koo xam ne kii daal bëgg ngaa doon ab xaritam moom bu waxtu nodd jotee moom mooy jiitu ca jàkk ja jiite nit ña koo bëgg a doon ab xaritam nag fexeel ba bu geesoo na la seen ca sàppe sax loolu daal moom lu ko ñoroon la moom. kon dafa boole woon e, tënku ci saratul mustaqim tënku ci sunnas muhammad sallallahu alayhi wa waaye li nga xam ne mooy ñetti wàll xaaji diine yëpp muy liimaan lislaam lihsaan si bu xaadir da caa jëmm woon moo tax ay melokaanam. E, yu bari la yoo xam ne euh, waxtu wu nekk war nañ koy jàng war koy roy waaye mën nañ ca tënk rek li ñuy wax salaamatu sadr koo xam ne du jàppal kenn dara ci xalam mooy maanaam du fa du fanaanoo dara jàppal ni dara loolu Cheikh la meloon te nii mu daa joxey ganam noonee la daa joxey dëkkam dafa meloon fi nun ni ñam ñépp ko tàqamtiku woon manul ganam talay dekem nim def ci gan lay def dekem day bil yaatal kanamam di fajj ite subam bangon day muuñ du wax ta kaw ken du fa jog mu ko jaw serigne abdul Qadir di ko xamne ne ku daan jokk mbokk la fonkon njabootuk serigne touba gi lol daan len topato sa suné di len ganaji ji ci barab yi wuté daan len taxawu ci xew-xew yu bari bëggoon ay magam lool ay magamit bëggoon ko lool te doyloo woon ko ci lépp kañ laaj di muuñ moom lanu jiili mii na loon te doo fa ñëw mu di la jox nga génn dem mu di la ñax dalay defal te du la nax day bég ci waaju ñëw di ñaan muy tàmbali sëñ Modou Moustapha ak kenn ku nekk joxoon na la cërëb sëñ Tuubaa dox ci yow ak bokk jox la war ba jëm la war a jox jëpp daan jóge gere altine jot ñu yandu si sëñ Modou Moustapha mu ñu waxtaan dañu war a waxtaan bu ne saxaar na sëñ Fallou itam ajjuma ju mu ñëw yandu ko julli yandu kër sëñ Fallou ba ngoon mu dellu gade ba ni mu ñibbisee ci dëkk bi mbokk de moom ñëpp lu yemoon wax ah ko ñi mu bokk doon kër sañ bi ñim ci magoon ñëpp da leen war ma yërëm yërëm leen di dimbale ñi ko ci màngoon ñëpp mu war maa leen teg leen ci kaw ku ñëw ci moom mu teral la ku ñëw ci moom itam mu dem ci yow. muy nit koo xam ne ni mu def jullit ñi ni mu jàppee taalibe yi ni mu jàpp njabootu Sëñ Tuubaa gi ñëpp war nañ cee jëf royuwaay man de sama fàttaliku bi ma njëkkee gis Sëñ Abdul Xaadir mu ñëw kër Sëriñ Son bu fas lay war. sareet euh, watiiru fas lañ koy takkal boobu oto yombagut gannaaw lay door am 403 ba ak 404 ba waaye booba la tàmbali woon di ñëw kër sëñ Abdul sëñ Soñ bu di dàkk al alxames dafa yendu si yaa ne booba la gën a jegee fu fu fu mu jullee ajuma bët sa di gaaw xëy na ba Mbàkke gaaw dibéer altine talaata alarba alxames mu xëyewaat Mbàkke dellu Tuuba lii daal mu suñ ca Mbàkke mu suñ ca Mbàkke léegi loolu soxla ci ci aw doxaanam ngir bëgg Mbàkke rek taxoon na mënuñ ko def bëgg Mbàkke mooy bëgg Sëñ Tuubaa rek taxoon mënuñ ko def ak waa kër Sëñ Tuubaa bu fi àgg nett la ma ne ma xam nga sëñ Chang bu li tax du ma fa di gëjee ma dafa dem lu bari ma ne ko déedéet mu ne ma nit dafa mënta ñàkk ku mu waxtaan waxtaanu xol te bu ma gisul du ko def kon moom gannaaw bokk yi leen yàlla boole day xaritu xolam di wéttalu xolam boobee laa tàmbali gis mu di fi ñëw di fi yendu alxames te buy ñëw ngir won la ne sëriñ Cheikh bi rakkam la waaye kenn ku ne ci doomi sëriñ bi sëñ bi lay xool ci yow ba bu lay ju bu lay siyaare si day am pas-pasu sëriñ bi lay siyaare ba faaw mu wut lu mu àndaale jox la ko ngir sëñ bi. xam nga sëñ Tuubaa yëpp loolu seqewoon ak ñoom dañ ko daaw sëñ Fall moo la seqewoon mas sama ne bis ba Basiiru ma su ko fekk Kaolack def ko fa ñaar ngaru ñaari fan ba ñuy tàqali ko kero da ko la yónni ku ñuy wax Moodu Mataar joxum mu woo ko la ko sama doom sàngam di bu ak bi sàngam féeti la naa la ko danga koy joxe mu dem këram da tàmbali ci moom ba ci suuf nag ku ci dem wut ko ku ne euh, bàyyi la naa la ko seqoon nañ nee na mooy tam ci làmmiñam euh, sëñ Basiiru moo ko njëkk ni xanaa jumaa ji bàggee yoolu ko sëñ Fallu jox nga di ko jiite moo ko njëkk wax ku miin waxtaanee da nga miin ne ku nawoon sëñ Basiiru la ci xel ci xalaat ak nu mu taxaw sëñ Mor Moustapha ci tax ci njëlbeenu yoon wi ginnaaw sëñ bi. ndax mën nga ne sëñ Fallou sax dafa am lu ñu jote ci wetu bokk waaw ndax sëñ Fallou moom moom rek la doy loo woon moo ko doyoon ci diineem moo ko doyoon ci njabootam waaw ku judd ku ne sëñ Abdou Khadir mooy dem tudd ko waaw diineem it moo xëy jiital ko. kon nit amul loolu loolu ak njaboot ak diine la am te sëñ Fallu sëñ Abdou xaaj rek la doyloo woon ci njabootam doyloo ko it ci diineem. bu ko defee li muy njëkk a def mooy yónnee ci ñi jege fii ñëpp yëgal leen ni ñëw naa nañ ma leen nuyu man mii yónnee na ba tàyyi am na jamono yoo xam ne soxna Faati Amar mi bokkoon ci waa kër gu mag gi dana ma fa yónnee yëgluwul ma ko dama demal sëñ Abibu nuyul ma ko Cheikh Sey imaam Daaru Xuddoos sëñ Cheikh Sey ma nuyul ma ko. ci at yu mujj yi nga xam ne sëñ Aliou ñibbisi na it daana ma yónni sëñ Axma dama dama nuyu ma sëñ Axmatu ak sëñ Aliou ndax yëg na ne dugg si ne Daaru Xuddoos fii yëpp ci Daaru Xuddoos la kon ñi ko jege ñëpp war nañoo yëg ne mi ngi fi la yendu parce que ñoom ñëpp ñu ànd ñëw siyaare si ko saafonteeg moom yendoog moom sëñ Abdou ne sëñ Abdou Khadre yàlla doona boole liggéey mun noo tàqali ko sëñ Abdou Lahad delloo ko lépp lu jëm ci lislaam ak doxeen mu mat ko sëkk moom itam daawuñ umpante ci lenn àgg ci li may wax rek ki ku nangu kilifteef la daaw dem këram gi ci Baxdaad li muy jege jege te demu tàggu Sëñ Abdou Lahad ne ko fa bëgg fa dem tukki daaw tukki benn tukki it te néew ko fa maa ngi dem tukki yi joxoon ko ma sëkk warmaa ma sëkk ñi mu seqal mooy Cheikh Sadio suñu changement Cheikh Moutada noonu la doon doxee ñoom ba ci jigéen ñi ñëpp. fii nga xam ne mooy Darou Mouhty at moom ni dana fi yëngu bu fi ñëwee gànna fi. ket kër sëñ Abdou Khoudous la daa daal daana fi yàgg lool te it da koo saxal at mu ni du manqué men men men at bu yeggee ci waxtu woo rek dana ñëw euh, noonu lañ meloon te noonu mu mel ak sëñ Chouaïbou nag ni la mel ak sëñ Abdou Lahad ni la mel ak sëñ Saliou ni la mel ak sëñ Mourlan ni la mel ak ñëpp ànd na sëñ Mourtada ñu dem fa yàlla baax nu ñu ne ca saal ba ci penku nun ñeent ket man sëñ Cheikh May ak ñoom ñaar ñoo jëm yu tedd yooyu ñu tegal leen li mu naan ñuy naan ñoom ñaari ñëpp ñuy naan am diir bu yàgg kenn naanatut sëñ Abdul Qadir ci boppam defe ne sëñ Mourtada dafa noppi mu joxañ ma Abdou Sawar jox ma kaas sëñ ma barkeelu ci Abdul Qadir moom moo ko njëkk a jox ma kaas sëñ bi ma barkeelu ci ma yëkkati kaas sëñ Mourtada jox ko mu daal di ci góox teg sëñ Mourtada laaj ma ba sëñ bi ma daal di koy jox ba sëñ Abdul Qadir mooy mu góox ma door a boole ñaari si jox sëñ Cheikh may mu góox mooy fab la jël si naan nga xam ne la ne

loolu 1974 la ma ñu fekk Cheikh Abdoulaye Touba la ne ko kat daa am ku am am ku génn sama soxna yi gannaaw suba Cheikh Abdou damaa bëgg nag ma tudd ko Cheikh Abdoul Ahad mu ne maa ko tudd si ba yàlla bañ ne suba la gént li mu ñëw fekkun fee ci kër sëñ sëñ Fallou gi yi ndindi daal wax sëñ Abdou Khadre laa bëgg mu tudd si ko ndax moo la tuddoon damaa mu tudd kii sax ngeen bokk fi nekk. sëñ Abdou Khadre daal ñëw ci bis euh, daal di ko tudd. Euh, euh, sëñ sëñ Abdou mi ngi mi ko ñu tudd 1974. sëñ Abdou Khadre 1975. muy muy sëñ Jili ñaan ki ki ñu wax naan Jili Jili Abdou Fatah. Cheikh Abdou Khadre. waaye mbul ngir sama jëm moom moo ko boppam. yàlla def yàlla waxtu naal daal bi jeex na yàlla def maa ngi def maa ngi am tool darkase bu naat wala léeg-léeg naat bi ñëpp lépp woon moo tool foofu yàlla dogal njëréer yi ñëw de ah daal di jàpp na ngeen doon njëriñ moom waaye ñu daal koy wax ah njëriñ yi day ñëw ak ak sëñ mu daal sëñ ma woon jàpp jàpp ci wàllum jox ko mu daal si jàpp leen jox ko mu daal di ñaan daal di tuur ba ñuy dem noonu lañ jógee rek dem loolu moom fa fi man la ko def loolu fan la boobu boobu xew-xew boobu karaw moom fi man la ko def موكو مايل بفهم موكو مايل بفهم موكو مايل بفهم شيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه دم عندك ديليغاسيون بو ماك جيتوكو جيتيكو دوبل توبا من بابا ماغا بيتيم ريو واي عندنا نيو بارينا بامو ديمي jubal ci Mawlana Cheikh Abdoul Qadir mbakke jaal ko kii kilifa magam ni mu nekke magu kii wéy te mooy sëñ Abdoul Ahad moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz di magam mu jaa mu jooxe ay njaalam tabaarakallahu sëñ Abdoul Qadir bég kontaan ndax ñoom ay mbokk lañu ci wàll yëpp mbokk lañu ci wàllu mbakke mbokk lañu ci wàllu Busoobe macha allah ak afe bari nañu mbokk gi bari mbokk gi yaatu na. yàlla dogal mu mënoon jàll rekk dem waaye mu toog fa ba julli jumaa jot mu ànd ak sëriñ bi Cheikh Abdul Qadir dem ca jumaay sëriñ Touba radiyallahu anhu jooxe fa julli jumaam taxaw ci première sàppe ak mboolem mbokk jullit yam fa taxawandool ak la fees jàkk-jàkk biti jàkk-jàkk fu nit keroog kenn amul foo teg see tànk ci ni ma ko gisee ci télévision ba ba ma nekkoon ci bitim réew xutba xutbaal sëriñ Abdul Qadir Mbàkke radiallahu anhu sëriñ Abdul Qadir Mbàkke kabbar kabbaram ba jiite jumaa ja akbar allahu akbar la ilaha نتنينا مولانا الشيخ الحاج مالك مجي خطبال شيخنا الشيخ الخادم رضي الله عنه لوكو غنى رفت لوكو غنى نيخ تي خول تي ني سين خول لير اك ني بغ مباخ تي نيكو بغ نك بري نانيو لول ني سين خول لير تام بري نانيو لول ني دوغو تي جولي كي با بانيو سلمال با نيو سلمال كادو يم وخ ما سابو ندغال الحاج عبد العزيز سي نينا غناو بمسكو ندغال سي كليفا جي موي الشيخ عبد القادر المكي موي الشيخ عبد القادر المكي أيده الله ونصره وعمره سيمبيني يلا نكو يلا دغرل ديمبليكو وجمع فيه ما تفرق في سلفه الصالح من العلم والعمل والولاية والإرشاد sëriñ bi mbooleem yiw yi nga xam ne yàlla di koo séddale ci doomu aadama yi mu def xam-xam ak jëfee ak maandu ak njub yépp yàlla ko yàlla dajale ci jëmmam ji moom Seydi Abdul Qadir ومنافع المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها سيمي مبولم يو ييغا خامني نجرني جوليت يلا يال نكو يالا داجالي سي جيم جي مو خامني دك ولا سو ولا بج غنار سيغ في موم ني مون عبد الخالق دو سي غوناي مون دو سي غوناي دي سي لي ما توك waaye li ma la jëkkoon wax ne mën naa am moom lu mu ci seeral ci moom sax am na leneen lu ñu koy féetale waaye nag la Cheikh Moustapha seeraloon ci moom ah loola kenn du ci kenn du ci kenn du ci mën a féetale dara ndax lu mu xam ci moom la ak lu mu def ak lu mu gis ci moom te sëñ Abdou Khadir amul ñaari melokaan lii muy wax ak yow ci biir néeg bi bu génnee ci mbedd mën nga ko wax ak moom ndax dëgg rek lay wax ak yow sariya rek lay wax ak yow euh, li lislaam bëgg rek lay wax ak yow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 sanc ay dëkk yu bari ci biir réew mi ngir tarbiya leen bañ defaru tarxiya leen it bañ àgg ci yàlla fonkoon liggéey lool te daan dundee aw ñaqam ngir bàyyi gum bàyyi woon xel li sëriñ Tuubaa waxoon ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahami mu doonoon koo xam ne ku amoon yërmande la ci jaam ñi daan leen dimbali ci seeni soxlay àdduna tabe woon lool ba xàmmeelu woon sax ku koy jox ak ku koy laaj ak jaamu yàllaam ak fonk sunnaam di loo xam ne néew na nga gis ku mel ni moom muy loo xam ne sëriñ Touba moo ko fàggul waaye di loo xam ne it way juram wu jigéen di soxna aminte bu sa fàggul na ko ko muy koo xam ne moom Cheikh Abdoul Khadir dundam gépp daf koo def ci jaamu yàlla ak jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi muy xidma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 soixante-neuf bi mu fi nekkee fi la yi nekkoon ci jamono yi bi sëñ gannaaw suñ Fàllu diggam bi ci xalifa ak sëñ sëñ blaat mu fi nekkee boobu sëñ Muudu moo doon jëwriñu kër gi jamono jooju ba sëñ Tuubaa daa def rek di leen di leen eh, digal lu baax di len téré lu ban di len digal julli sirr nak julli waaw julli mom da da wax bu ne ci daara ji di retu julle koor ya da wax ko xamne ki man nga ko boole ak liggey bi nga boole ku ko munta boole nga baye liggey bi te te wor bu de julli da ngay bu waxtu yu jotté nga dem japp julli so ga delu wat ci liggey bi. mu fi nekk di liggéeylu ci daara yi lim ñu daan njëkk wax mooy képp koo xam da nga sukk jébbul da lay wax ne la na nga jaamu yàlla te liggéey te wattandiku tooñ ndax jaamu yàlla mooy taxa dem àjjana liggéey mooy taxa am loo liggéey loo jaamoo yàlla wattandiku tooñ mooy tax mucc wala commencé wax ba noppi ñi nga xam ne ay jëwriñ lañu dalen di wo wax na len yeen ñi nga xam dañ leen denk gone yi bu won liggeyete ba julli jot na ngeen dem japp kenn jitu samp sab gop ngeen julli ba nopi dor dellu ci liggey bi fii gone yi nga xam ne ñoma fi fekk ci Baxdaad gi yebulo fi ak ñu fi seeni bokk joxe ñu fekk ba fi mbooloo lañu xam ne ci ñoo xam ne boo bi lañ ko deg dañ na fekke na waaye fii ñi fi tarbiye woo ba mu wàcce leen ma xam leen ñu xam ma ne sëñ Tuubaa daa jëflanteeg taalibe def na ko ñoom ba ma sëkk dara di dara dara dara di yi nag jamono yooyu baxdaat gi booba ay juróom ñaari daara ñoo fi nekkoon juróom benn daara moo doon daaraam ak daara yi sëñ juróom ñaari daara jamono boobu nag moom sëñ bi moo daal dikkal boppam ci daara yi dañu fekk ci tool yi musaan dikk fi ñu bayee lay taxaw ku ci manqué mu laaj ko mu xamoon na ñëpp moom kenn ku ne say waajur la daan la laaj doomi diw doomi diw jamono boobu itam naka jekk nag daan moom lu muy wax lu ne dala koy misaalal ci eh, loo xam ne da nga ko mën a jàpp mooy mbay mi boo mosaan di bay dalay wax na la euh, tol des ko sukkandikoo yalla la ñu sukkandikoo ndax bo baye ne manam li ñuy wax yalla yalla bay tol da danaa wax ne yalla des ko booleeg dara da ngay gëm yalla ba noppi bay sa tol ndax man nga bay ne dama bëgg dundu bay ba noppi lu mu tutub dundu am ca maanaam amu ca lu mu tutub dundu te du tee nga dundu ba déwén kono yalla mo yorub dundu tal wi na dikk fi moom it nag ku fi agsi boo dikkee te am xel mën nga fa jëlee loo xam ne da nga ko jëriñoo foofu ndax li ma lay digal mooy yàlla nee na yonent bi nee sëriñ bi nee na am na mag mu dikk moo xam sama kanam la agsi nuyu ko noo ko demandé damay mag te bëggoon lu may dimbali ko ci ay ñaan ba ba nga wutoon ci loolu mooy ko soo nga jàpp ci alxuraan ak xasaayid lépp ci alxuraan ak xasaayid alxuraan xasida lépp ngi la jàppoon moom la tollu woon naa ci ay diggante yoo xam ni amoon naa ay tolof tolof ni ko sëñ bi de am naa ay jaaxle man de am na lu ñu teg ci samay mbagg te jëfuma ko mu ni ma de yàlla moo indi dogal mais daañu def ci def ñaan te amna yaakar ni man mi di wax yow yalla du delo sama ñaan lolu mu ma wax mel balu fetal bon nu mako fay hmm doonoon ko xam ne nag ku yërëmoon binde fi la rahmatu bil khalq te lolu mom nit ku yalla ku jégué suñu borom lolu ci say mandarga lay bok moy ko xamne dem nga ba yalla bëgg la ndax ci hadith yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam bimu mu ne man aada li waliyan faqad azatuhu bil harb dafa bam ba mu waxee nit ki namuy muy jaare ba jige suñu borom dafa wax ne day dem ba suñu borom beugal ko bopam kon beugel go nga xam nitu yàlla yi dañ fay ag dafa bok ci màndarga yi yow it nga wëlbatiku beug bindé fi seydou khadir kon agon na fofa ndax yàlla dafa waxoon ne ta'ala sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon al khalqu ayalullah wa ahbul khalqi ila allah anfa'uhum li ayalihi sëñ bi itam ni mu bind woon mooy képp koo xam ne kii mu njàqaral saayir wala batin faaw sa xel daj ko boo xamee ndax ko fu masaan ñëw ku ne yàlla saafara ñuy wax naan mag du xam ne na bi ah kay sëñ waxaay dana xam ne danga koy nax mu tàbbi dana dana dana da xam da koy nëbb dara it mu tarfati mm-hmm. bañ ko jël sax bi jëlee war na gisuma tamit néewuma moo ko gën def ci àdduna waaye néewaa na ko ko ci fekk koo xam ne li ko gën a neex ci àdduna mooy am ba joxe am ba joxe jàpp na ne moom moo di dundam saa yu amee lu ko naq rek nit dañ ko teg soxla mu laa mu ci jiba ji néew yàlla dafa am jikko joo xam ne nii moom la wuteeg doomu aadama yi yàlla loo gën a laaj mu gën a bég ci yow gën laa jox doomu aadama loo gën a laaj mu gën laa foñ gën laa sori sa yëpp xaa nag jikko jooju niru ko yàlla sunu borom kooku daal mooy Cheikh Abdoul Khadir ci njub ci bëgg lu baax ak yéwén ak amal njëriñ nit ñi xam na xadis buy wax ne ki gënal yàlla mooy ki gën ci njaboot gi ndax njaboot gi nit ñi njabootu yàlla lañ ku gën ci ñoom rek yaa gënal yàlla Cheikh Abdoul nag kenn du werante ne ñi ko xamoon lim taxaw ci nit nax nañ ko ci nu ne nit yor na ordonnance boo xam ne wenn kër lay doon saa bu amee soxla la ñoo ne dama am ordonnance mu ne ko ñaata mu génne nga ne ko nanga mu génne jox la fonk nit ñi nit doomu aadama wax soxla su ko waay wax du ko xeeb kër yi mu dugg ngir tudd ay doom ak lim taxaw ci armeel li ngir julli ay néew kenn xamul nu toll te am na ci ñoo sax ñi dañuy foog ne fi yàlla teg daal waroon naa weesu àgg ci ñooñu waaye moom doomu aadama la fonk ba amul ko tuuti fi moom day jàpp ne jaamu yàlla lay lay lay jëflanteel kon yàlla amul lu tuuti taxawaay boobu la amoon ci nit ñi ba tax yàlla dogali ñëpp nangul ko mooy koo xam ne ay taalu taalubeem ay soppem man nañ wax sax ay soppeem ëppale ci talib far ñepp ñepp ku bokk ci yoon wi ba ci ñi bokku ci yoon wi ñepp ko nangul fo tuddu Cheikh Abdou khadim la xeyartu koku julit tigi la nituk sunna la sunna gi mom foko ko sunna ko ci dim ko fanké won ci ba ci yu sew sewaan yi nga xamné nit ñi duñ ko bayyi xel Cheikh Abdou khadim da ci doon sunna ci ciol mi ci doxine bi ci waxine bi bu dugg ci dara wala muy genn amul lu muy jëndal jataay bu mas a toogee jataay waare jataay fekkam la ma ngay nettali siira ma ngay firi alxuraan di jàngal nit ñi di jox ay duruus ma ngay fàttali nit ñi Sëriñ Tuubaa mi ngi waxtaane bokk loolu moo doon ak dundam. sax ci jaamu yàlla. nee na ngi nuyu digal nu sax ci jaamu yàlla. ci sunnatu rasulillahi sallallahu ci sunnatu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. tey wéy ndigal Sëriñ Tuubaa. tey wéy ci ndigalal Sëriñ Tuubaa. di teet ay tereem. ndax Cheikh Abdou Khadre du ko ñu mën a waxtaanee ay jikko du ñu ko waxtaanee ci jikko kon su su suñu diggante ak Cheikh Abdou Khadre moom bu ñu doon wax ba ba ba ba déwén du jeex. ndax mën naa ne ci lim gën a bëgg ci la ko fi yàlla jëlee mën naa ne ci ak julli la wàcceeb liggéey ndax ba tey sëlmalut julli ga mënu ci dara waaye boobu noo ko doon tey maag jil tere muy cinu ci taay ju njëkk ji ca taw jógaatut la mujj wax ci àdduna it dimbale nit rek la man la ko mujj waxal joxal ma diw joxal ma diw joxal ma diw tegu ci fukki minute jóge fi kon lam doon ñaan yàlla naan dafa bëgg féete di jaamu yàlla ba di jaamu yàlla ci yàlla yi yàlla dimbale ci jóge yàlla li mujjee def it nag ak ci mujjee jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi

lii mooy julliinu sayxuna Cheikh Abdou Khadre wàcce na farata lay julleeg sunna lii moo ko war mi ngi ci yoon. ni mu leen daa dénk moom laay dénk ba tey. ni mu leen daa dénk. démb ak barki démb moom la leen di dénk ba tey. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. ci sunna. ci sunna. sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tey waxtaan ko ak tooñ. sax ci ak jub. te sax ci ak jub. ak euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ndéemadina bi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ak ndéemadina bi te ñoom la yàlla dénk mbiri seen kilifa itam waaw ngeen di dimbalante ñoom ngeen defal mu daara ba ca gën bu gën a rafet waaw te lépp loo xam ne luñ soxla lañ loo ko mm. te suñ suñ diine téyewu ko ngeen ngeen ànd ci am ñoom nee na digal na leen lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñu biir térewu ko ngeen ànd ci ñoom.